Habib mom la ñu octroyé woon du 10 millions de francs CFA mu jox ko ay femmes biñ ci paré nak mu ne dama leen bëgg dimbalé ci seen activité socio-professionnelle ndax dafa bëgg femme bu nekk am autonomie mo waral ñu tey ñu dem Madar def commande 1 million pour une première euh, pour en accompagner femmes comme ça ñu distribuer ko incha groupement yi ba nga xamé ne ku ci nekk di nga ci mëna a gis sa bop distribution yi dañuy def euh, groupement yi nga xamé dañ leen ciblé. ñu jox leen produit Madaar ñu jaay ñëw remboursé ñu def suñu kees parce que suñu biir rek la ndax bëgg nañu dem ba nga xamee ne incha allah nañ dem ba commandé lu mot 10 millions dans le mois ou bien plus sax dans le mois ndax liggéey def suñu kees bokkul ak financement yi xamee ne 10 millions nga xamee ne ab ñaar da ko jox ne dama leen ko may yooyu yi tamit ñoo ko moomal suñu bopp ndax Habib nee na dama leen di accompagner ndax man développement laay def lépp loo xamee ne dafay yokk jigéen ci biir këram ak ci biir njabootam dinaa leen ci jàppale. produit madar yi moom dina dañ ko def parce que 10 millions yi bu ko Habib joxee dafa ne loolu dama leen ko may ngeen ko seen biir du am intérêt amul intérêt mais bii comme dañoo bëgg mu ah, dañ ciy def tuuti intérêt parce que biñu demee madar dañuy defal remise wàññil ñu ko kon produit marché la ñuy toute la zone nord parce que groupement zone nord yépp la du kese 19 19 quartiers yi nekk zone nord yépp ñoo fa